xaaral moo wuusuma namm naa ko torop eh Binet kii kan la lu bees yow ça va yow laa doon woo de ah boobu fekk na man ci yoon wi naka journée bi ah neex na fi mu toll nii comme yow egsi nga eh, déggal déggal bàyyil tooñ waay naka yi tey meg ça va sax man de damay ñëw génnaat nii rapidement ah ñëw génnaat kañ nga fi daan ñëw génnaat nii yow tamit waaw nu mu demee la rek dafa am lu xew quoi loo xamante ni jàmm waa jàmm la mais jàmm ju metti sax jàmm ju ma naqari jàmm joo xamante ni que lu ma daal su ma sañoon du demee noonu jàmm ju metti may bañ tamit xam nga nga dégg ko feneen man ma di ci am door quoi moo tax ma ni xaaral ma daw lu mu gën a gaawee ñëw expliquer la daal c'est que sama nijaay daf ma woo sànq mu ne waaw looy noppi yow doo wax li ngay wax yow tamit man yaa ngi may tiital de. noo dafa ni daf ma may soxna quoi. lan daf la may lan dégg ma de. doomam la ma may te xam nga sama nijaay la. yow sa nijaay daf la may jabar keneen ku dul man ah déedéet loolu mënta nekk. lu am ni gën lu ma. waaye may ma waxoo dëgg da fen lii bu amee yow la neex Ousmane yaay baadoo la yaay jaam. لو في مجارك يو أقلم للدفن أدهرد ديدد لي منتنك idu deug way da ngay wax rek du deug wa mais do deg luma expliquer amo luma expliquer bi nga defé sa jëf ju bon ba paré amal ma kipiti may dakh yow ak kipiti am nga ni tak la dagan ya bon ousmane bo man dama ñoon pour expliquer kam la wax ci biti ki mo bon ki moy xey ay way sama aduna yakuna sama aduna yakuna way waa kër gi moom xanaa kenn nekku fi ndey Binta kii mooy baadoola kii mooy xaj waa yow lu xew baadoola la kan mooy baadoola foofu ay ndey Binta gaarama yaa ngi may tiita di lu xew yow tamit day Binta waxal ay satu ay satu Ousmane takk ma jabar yow puus ma nii yow lii bu la dal woon rek ma rus bu la dalul woon ma xam ne jàllu lu ñu raxasoo man maa kay naan yow Ousmane takk na jabar moo tax nekk fii di billaay yaa ma rus loo xam nga ne yow bés bi mënoon ma ko yow Ousmane fu nekk fu waay tourné gis leen ci dëkk bi nga daa sa tànke rek nekk ay ca yow xamoon nga ne usmaan buy takk jabar ñiy toog seen teggi ndey ñooñu lay takk waaye du takk ñi nga xamante ni foo tourné gis leen. waaye Ousmane su ma bone moo may yàq moo may génn ci mbedd yi. booba dafa fekk mu neex la. tiyaatee sa ñàkk fayda rek ànd ak Ousmane naan damay happy damay fly to fly mu ngi nii nag yow bés bi xam nga ne warula la woon a bett yow yaa gën a xam ne ku sa bànneex góob sa naqar góob nga sa naqar nag mu ngi nii jarul ngay jooy waaye usman moom mag moom di yomb ni tànk si suuf jaan ci suuf yàgg yàgg dinañu béje